ci moom lañuy ñuy delloo incha allah waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéggalu di ñaan sëñ Ablaye mi génneen muy xalif général des Layènes yàlla na ko yàlla xaare àjjana firdawsi jaale ñëpp Chérif Abdoulaye bi xam ni moo fi jóge demb muy tiis di waaye aussi tamit moom tamit ku ko xam xam na ne yàgg na préparer lii parce que ba mu ñëwee en avril 2001 discours bi jiitu dana wax jéena jëfa des kon donc boobu moom xamal na ne li ko dese lii rekk la. suñ borom moom bu soxlaa jàmm soxla da ngay ñàkk métti na torop nag dem moom képp ku bokk saaxlu laayeen rek na la kenn na dañuy sant yàlla rek di ñaan Baye Ablaye yàlla na yeewoo àjjana. yàlla na ko yàlla yërëm te yeesal yërmandeem ci kawam di wax ne jàmbaaru diine du ma ne du ma keneen jàmbaaru diine lislaam moo daanu ku doonoon jàmbaar ngir nit ñi xam yàlla xam yonent bi ku doonoon jàmbaar. ngir jullit yi doon benn ku doonoon jàmbaar ngir jullit yi bëggante ku doonoon jàmbaar ngir jullit yëpp jàppante di wax ne ñun dey sunu xel dal na ci moom ndax nekkoon na koo xam ne foo ko natt ci mbaax ci woyof ci tabe ci laabiir ci yëg doomu aadama weesu na ko maanaam damay wax ne moom symbole la woon ci diine di koo xam ne taxawul rek ne sama maam mooy rasulillahi sama baay mooy yonent yàlla Isaa tée garaat yooyu ci poosam toog déedéet da koo jël ba pare simmeeku takk ndigam doon taalube di dawal diine di dawal diine naka maamam doon waxee ndax maamam da doon wax diine amul boddante diine amul xas sa moroom diine jàppante la bëggante la. ñaw bi ñawkat bi mu doonoon booloo di woo ñëpp pour ñu nekk benn ci biir kilifa diine yu bari te wuute taxawaay bi ni mel tey yoon bu ñu mën a ab ba wéeru ko. waa loolu daf ko doon na li ma lay wax nii fekkew na ko. waaye déglu nañ taarix yi daf ko doon ci maamam Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam doon na ko ci baayam yonte yàlla yi Isaa bi nga xam ne moo tëdd fii mu ñëw dundal sunna soos ndax sunu borom moo wax ne wax waxtasimu bi hablillahi jamian wala taxaarafu ba aaya ba jeex moom dafa ñëw jàngul aaya bi rek teg ko dafa ko ñëw di ko dund jël ay doomam doom ni mu saxee ci xol mbokk ni mu neexee nga bàyyi leen fa tuddee ñeneen kon kooku dundal na ci lislaam li yàlla di wax ci aaya boobu mu doon lu rafet nag ndax tuddeewul ñi bàyyi ñii koo xalaat rek tuddee na la doom ku baax dem na ku bëgg nit dem na ku yilif ak ak amul murit bi amul tijaan bi sooy xool sax murid lañu gën a fonk sax ñi ci des ndax man fii yàgg naa fi waaye sëñ Ablaye kenn la ku ne képp koo xamante ne rek euh, euh, xalifa nga rek muy Touba muy Tivaouane fu nekk am na fu turandoo loolu nag yàlla ko ko jagleel lu yàlla jagle moom kenn mënu ci dara sëñ Ablaye moom ah yal na nu yàlla taas ci barkeem. ñun ñëpp yar nañ ci diine xamal nañu diine xamal nañ ne dundee ci àdduna ñëpp ñun ñëpp képp ku nekk laa nekk am nga yar am nga teggin te lépp Baye Ablaye moo ñu ko jàngal ñu ngi sant yàlla bu baax nag di sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax. ci wàllu digleem ak wàllum jàngaleem lan nga yaakaar ne moom lañ ci war a topp pour jëriñoo ko ak fi jamono toll. diine rek ñun fi jamono toll nii képp ku nekk laa doo ci tiit parce que lépp lañ xamal xamal nañ lépp képp ku nekk laa na nga waree nekk sa àdduna xamal nañu ko. ñu sant yàlla bu baax métti na nag mais dañ koy sant bu baax jërëjëf. bés dina ñëw nu ñëpp di ko jooy waaye ku nekk na ko xam Chérif Abdoulaye xam na ne ñun ñii kat lu ñu doon doon xale fekk nañu ay jotaayam moo xam si gàmb yi si conference yi si julli yi mu doon def si naafile yi dëkk yi ak jotaay biir néeg sax fekk nañu ay ay jotaayam. muy koo xamante ne nii mën naa wax ne monument la woon ci l'islam monument la woon tamit aussi si àdduna bi yëpp tey moo daanu euh, di ko jaale aussi xalifa diine yëpp parce que boo gisee taxawaayam nga xam ne nii xalifa yëpp ñoo ko bokkoon la preuve barke dem wane na si tabaski ji sëriñ euh, sëriñ sëriñ Mbay Si Mansoor yónneel na ko xar sëriñ sëriñ Muntaxa yónneel na ko xar nga xam ne ne ñooñu kat dañuy mottali kóllëre gi xam ne ne sëriñ Ablaye taxawoon nag rek yàgg na ko wax nee na moom cinquante ans ñaar yoon rek la demul màggal te ni mu ko doon defee màggal noonu la ko doon defee Tiwaawan tey def naa ne ñëpp xamoon nañ tamit ni mun taxawee si digganteem ak këri diine yooyu moo la jëfe woon na waxee woon na ko jëfe woon na ko si am na ay doomam tudd leen ko waxee woon na ko du dog benn tànt te tudd fa alaaji malik ba nga ne kii xanaa alaaji malik rek la xam du toog benn tànt te waxu fa xasiday sëriñ Touba ba nga naan kii xanaa sëriñ Touba rek la xam toog benn tànt te waxu fa Baye te nga naan xanaa kii Baye Niass ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. àddina bi yëpp am na kar tey dina wax ne tiis bu metti la ñu yeewwaale tey ñëpp naqar bu metti fu ne nii pour wax sax daanaka day xaw a jafe ndax choc bi nga xam ne moo ñëw dal tey ci suñu kaw ndax ku ne xam na ne li ñu ñàkk tey lu rëy la lu foor la perte bu mag a mag a mag la ci àddina bi yëpp sax laay wax du ñun rek ñoo ñàkk àddina bi yëpp a ñàkk du laayeen kese moo ñàkk am nañu naqar nag ba pour fu mu toll nii pour ñu wax sax daanaka day xaw a jafe sama sama doom day xaw a metti loolu ci xol mi xamoo métti loolu ci xol daal dëgg yàlla. moom rek la ñuy ñaan ki nga xam ne nag ñi nga xam ne nag mooy ay doomam la ko commencé ca taaba Seydina Issa Laye yal na yàlla yore ay cëram yal na ko yàlla yàggal ci suñ kanam suñ xel sa dina guy ci di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko ak mboole ay rakkam ak ñi ko topp ñëpp ak laayeen gépp moo tax tamit aussi ku mel noonu tamit bu fi jógee defe naa tey boo xoolee fii. nga xam ne ne kii kat ki fi jóge nii kat nit ñi amoon nañu benn sentiment si moom xale yu bari mënuñu ko boo xoolee bi mu toogee léegi ça fait vingt ans boo xoolee ñi fi nekk ñi ñëpp presque boo xoolee jeunesse la waaw boo ko juddooguñu waaye nag doxalinam bi mu doon doxalee ak message am bii tamit ñi xam ne ñi ko fi teewal moom la ñuy wax si ñoom saa yu ñu si tànk yi loolu tax na tey ñëpp apprécier ko tey boo xoolee tey bi affaire bi amee ñu bari da leen surprendre parce que xale yi dañu tàmmoon di ko statut si si téléphone yi si rajo yi saa su ne mënoo xëy benn vendredi wala benn sambi te doo gis benn ah, xale yi def ko statut te ñu bari miinuñu ko xamuñu ko xar xar kanamam waaye ay jëf ak i baaxam yi xam ne ni moom la ñu dëkkee di ko wax si tele yeeg rajo yi moo tax loolu am. di yokk sant laayeen yi Baye Abdoulaye Baye na waaram ba dem dam ñu jàngal nañ ci sax jàngal nañu ragal yàlla. topp yàlla ak tappale bay Abdoulaye bokk ci laayeen dafa war a jub bay Abdoulaye lool la ñu jàngal topp suñu diine loolu lañu jàngal ku xam bay Abdoulaye rek xam ko ci dëkk yàlla teral ko aussi ay ku baax ku baax moo dem ku baax la ñu ñàkk ñu laayeen ñu ngi sant nag di dolli sant yal na ko maamam teeru bàyyi lay sallallahu alayhi wa sallam ak baayam Seydina Isaa yal nañ ko teeru sallallahu alayhi wa sallam lañu mën a jàpp walla topp ci wàllum njàngeem njàngaleem ak diine ji nga xam ne ni tamit dina ko daan wéyee ak fi jamono tollu tey Baay Abdoulaye de këru diine yëpp na daan dem boo demee këram maam jaaraa nga fa lépp rek waa kër Touba waa kër Tiwaawoon boo demee këram daal tur yu nekk fa nekk moom dafa tas si àdduna bi du laayeen rek kër yëpp kër yëpp la fonk moom amul murit tiijaan laayeen canaba canaba fu nekk la Baay laay doon dem ay Ablaye cew lay liggéeyal na maamam sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal na maamam bàyyi laay sallallahu alayhi wa dañ ne ko dafa ne woon bu Abdoulaye ñëwee sama tarix bi dina siiw te siiwoon na ko waaye Abdoulaye moo siiwal lu mu liggéeyee yal na ko suñ borom fay ci barke maamam bàyyi laay sallallahu alayhi wa waaw moo tax aussi tamit nu ngi ko jaale ñëpp di ko jaale aussi ki euh, fi ne muy euh, euh, Doudou Matar Laye di ko jaale bu baax ak rakam Imam Bachir ak Mamadou Lamine Laye taxawaayam rafet na aussi di ko jaale aussi maam Libaas Laye maam Ala Imam Matar ak njabootam gépp Seydina lay nekk sa kaw ñoom ba Ndiène le général ko xam ne ne fépp tant bu mu taxaw. ñëpp xam na ne kuy bàyyam a travers le général Baye Ndiéne wax dëgg yàlla boo tey lay sànq maa ngi lay revenir rat si xale yi moo tax ñoom ñoo tàmm di dem daayira mais ñëpp xam ne ne Baye Ndiéne gi mu am si bàyyam Serigne Ablaye dikk ka jaale bu baax a baax a baax a baax a baax dikk ka jaale bu baax a baax a baax a baax waaw jërëjëf waay merci ñoo ngi la metti ñun ñoo ngi jóge ba Mbuur ñu ko déggee ci fajar la ñu jóg bàyyi suñu yitte yëpp ñëw ngi yàlla ak borom bis bi Baye Abdoulaye di jëmm joo xam ne moom daal ñàkk nañu loo xam ne daal mënuñoo xam daal fu mu ñu féete waaye nag nañ sant yàlla yàlla nañ fa yàlla ak lay féete yàlla na ko yàlla ak baayam ak maamam teeru te teral ko ñun ñun suñu xol sax dafa kii mënuñoo wax dara man mbuur laa jóge ñoo nga jóge ba mbuur dem yoof dikkaat fii lépp ngir bis yëf yi metti na lool kenn mënut a wax dara sax kenn mënut a wax dara xanaa sant yàlla rek. 1926 moo nekkoon date de naissance mu ànd ak diine bi di dox moom moo doon doxal diine bi depuis temps Seydina Mandione baayam mu nekkoon mu wuutu woon Seydina Issa mu ànd ak moom di wax ba mu jóge fi Seydina Mandione jóge fi Seydi caw ñëw mu ànd ak moom ba Seydi caw dem Baye ñëw mu ànd ak Baye Rane ba mu dem moom mu toog. moom nag ñu naan laan euh, lay jeex na mu toog na desandi fi ba nii mu génn àddina démb ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla wonale ak maamam Seydina Limaamu alayhi salaam ak baayam Seydina Isaa Ruhullah waaw dafa fekk nag dee moom moo li si alxuraan wax rek moo ci nekk képp bakken bu mos a dund di nga mos a dee faatu faatu ñëw na ñu ñu xam na ne heure bi mu ñëw foofu la ko suñu borom bëggee noonu noonu noonu rek. ndax. yomb na mën koo tollale méttit bi ni mu mel ci xolu laayeen métti na trop ci xolu laayeen métti na trop moom moo tax sax ñun on a on perd les mots on a même pas pour parler ndax méttit ndax fi mu ñu toll woon ak ni mu nekk woon jaa ci lislaam waaw foo déggee tey laayeen siiw sëñ Ablaye mii tey génn dina moo ko siiwal moo ko doxal loolu moo nekkoon mission ba mission jeex tey wàllu njàngale mi mu daan doxee maanaam këru diine yi fu nekk la daan dem booloo boobu mu doon am tey nan lañu war ko mën a abbee pour mu nekk loo xam ne day continuer malgré suñu borom jëlee na ko fi. alhamdulilah rabil aalamiina loolu am nañ si yaakaar trop ndax bi mu toogee ba léegi boo xoolee boo xoolee muy doom yi muy sët yi ñëpp li mu doon wasaare mun ñoom ñu continuer di def mission boobu di ko wasaare ba alhamdulilah rabil aalamiina fu nekk fu nekk la dem waaw ñu bëri ngi tey gëm Serigne Touba bu nekkul woon sëñ Ablaye du ñu xam Serigne Touba man man man man naa man mën naa ko confirmer man. waaw fu ne la fekk ay jàng ay murit yu daanu ñu naan moom moo leen xamal Serigne Touba. ndax mën naa wax ne defar ñu bari wan na ne ñu bari jaamab yàlla la toogul rek di ndamu sama maamay rasulillahi bu ko neexoon toog ca bam ca tolloo ne sama maamay rasulillahi ñëw leen jox ma àddee waaye defu ko da doon jóg di génne alalam di def ci jaam yàlla yi mun naa wax ne. ci samay nopp sax dégg naa amul woon kër gu moomal boppam ngir lan dawal diine lislaam da daan jóg di dawal fu mu dégg diine lislaam am na fa bis rek mu dem taxaw fa wane fa jàngale fa ba nit ñi xamaat seen borom këru diine gu xewle bu ñëwee wax ci sa kilifa loo xam ne yow sax dalay yéem ndax jëmale woon joo xam ne nag. jëmm ju yéeme la maanaam ku xeebu la ci gis-gis nii waaye ku yéeme la ku matale la di ñaan yàlla yàlla na àllaaxira di naflaayam yàlla naka yàlla wanaleeg maamam ndax maamam da doon wax ne Abdoulaye mi ci Abdoulaye ya ñu naakaan kuy kooku ca ñaka fekke woon mu leen wax kooku de bu ñëwee sama yoon wi dana siw ci samay nopp dégg naa bis bu mu ganee àddina baayam Seydina Issa Rouhou Laye mi tëdd fii mu ngi woon këram gi nekk dakaar maam Seydina Mandione moo yabal benn taalibe nekk demal wax sama mag Seydina Issa gone gan doon xaar gane si na àddina dégg naa ba mag mu ñëwee ne Seydina Issa Baye Mandione de moo ma yónni nee na gone gan doon xaar gane ne àddina moom maam saydi dafa yëkkati junni jox ka ka indi xibaar ba ne ko boo demee na nga way Abdoulaye kon kooku am na cër bàyyi laay da doon wax ne jamono bi muy nekk ak ci kaw suuf na ngeen ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ñu nekk ndax lan mu ne ndax yàggam ci kaw suuf nga ngëneel la ci bépp jullit yaakaar naa ne dundal na loolu ñëwul rek basé wu ci wax yooyu ndéem loolu lu wér la waaye dafa ñëw dundal loolu ba ñëpp ràññee ko ci jàmbaaram ci njaxlafam ci am pas-pasam ci jullit yi kon mu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jaale axlu laayeen gépp ak mbokki jullit yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad